ale kon njariñil koor koor dafa bari ay njariñ lool ci wàlli wàllu màdda te mooy matériel ak wàllu ruux ku ne sa jëmmi bopp koor am na ci njariñ sa ruux it noonu ba ci jëkk ci wàlluk euh, li muy njariñ ci ruux mooy koor ak jaamu yàlla la goo xam ne jullit bu ko def yàlla fay la ci la moo xam ni mënees na ci amee ngërëmu yàlla koor jaamu yàlla goo xam ni jëf ko dana dugal nit aljanna koor ñaareelu ñaareelu njariñ yi lañ ci mën a wax mooy koor dafay far ay bakkaar bakkaar yi at bakkaar yi at ndax am na hadis bu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba weeru kooraat day far li nekk ci diggante bi ci ay bakkaar koor dafay dëggal ak ragal yàlla ndax suñu borom bi muy digle koor dañu kutiba alaykum siyaamu kama la ala alladina min la laallakum tattaqun kon ragal yàlla gi ñu soxla ci nit ki te ragal yàlla mooy lan mooy topp ndigal yàlla yi ak bàyyi tere yi koor daf di ci dimbale nit ki ngir mu mën a topp ndigal yàlla ak man a bàyyi yi ko suñu doon tere koor ba tey nit dana ci entraîné woo ci mën a muñ dana ci jàngee ak mën a muñ loolu ba tey ndax bi nga xiifee te sañoo lekk mar te sañoo naan léegi ñàkk googu nga ko ñàkk sañ ba noppi muñ ko ba waxtu wa jot nga doon ko def kon day mel ni dafay entraîner nit ki ci mu mën a muñ koor ba tey dafay jàngal jullit bi al amaana te mooy e, di di di xel yàlla léegi bi nga wéetee xiif nga mar nga kenn gisu ku dul yàlla te lékkoo nanoo loolu kon day mel ni yëg-yëgu ni yàlla mi ngi may gis fu ma woon nekk ab jullit mi ngi koy jànge ci koor koor day jàngalewaate loolu kon day mel ndax bi mu xamee ni kenn gisu pour yàlla ba noppi teewul mu bañ a lekk bañ a naan rek loolu kon am jàngale ci nu ñuy yëge yàlla ci jamono bu ne koor ba tey dafay dëgëral nammeelug nit ki ak di daas ak dogom day tax nit ki amuk dogo koor dafay sellal am xel day tax nit ki Eh, bu fekkee ni am xelam daa xawoon a fatt lu ci ëpp ñaare buy woor di yëg ubbi ko xel loolu yëpp ci njëriñu koor la bokk koor day jàngal nit ki euh, nu ñuy organiser ay mbir ndax forcé gi mu lay ci mu am heure bu fixe boo xam ci ngay sañ a lekk loolu rek boo ci jógee war ngaa mën a jàngate ci koor ni àdduna lépp dañ ko war a fixé dañ ko a programme nga xam ni lu ci ne ak heure lekk doo cap capti lekk fu mu la neexee waaye day am heure yooyu lekk ak heure yooyu nelaw ak heure yooyu jàng ak heure yooyu waxtaan heure yooyu jaxasoo ak nit ñi heure yooyu gëstu xam-xam yooyu yëpp nii lu ci nit ki dafa war a fexe ba organiser ko teg ko ci aw léegi ndax suñu borom lépp daf ko organiser lépp daf ko programme léegi jullit bi dana jànge programme ci weeru koor koor ba tey dana yëgloo jullit bi bennoo gi jullit yi bennoo ngir jullit bi nekk fii ci Afrique jullit ba nekk ci Europe ba nekk ci Asie ba nekk ci Australie ba am nekk Amérique jullit yépp bu weer wi teroo ñuy woorandoo ñu xam ni fu ab jullit nekk ñu ngi ci biir weeru koor loolu kon danañ ci yéege benn ak jullit yi boo fee ñu gën a góorgóorlu ci benn la seen bopp ci biir loolu sa xam ne yàlla ak benn lu bëgg ci ñoom ci góorgóorlu seen kem kàttan koor ba tey dafay Eh, jaqi yëg-yëgu yërmande ak mbokk ci diggante doomu adama yi waaw ndax bu dee feeca ci Tuubaa dañ koy dund bu baax dañuy dund bu baax léegi kenn ku ne eh, xool sa mbokk moo war a jox suukar sukoor keeseet comme ko war a jox keeseet comme ko war a jox daanaka dañ koy jox jolaate di ko jox jolaate ba kër kilifa boo dem mën ngaa tax ñu dajale defal lu bëree bëri ci suukari koor waaye moom itam noonu la koy séddalewaat ba am na ci ñoo xam sax dañuy jëndaat suukar di ko dolli ci suukar yi ñu leen joxoon ngir joxe ko mu mel ni kon day jeqi yërmande ak mbokkoo ci biir jullit yi da ciy feeñ loolu. naka noonu lu ne dafa waaj dafa aaje ab noflaay mu dañuy soxla ci moom noppalu noppalu suñu borom daf ko bindaale doomu aadama mu bokk ci li koy e, joxaat énergie pour mu mën a góor gën a gën a jàllaat léegi ak comme mooy jël ñam wi. di ko téye di ko partage di ko nangam nangam léegi loolu jamono bu tekk nopp lu tuuti dara bañ bañ bañ a sonn day am solo ci moom ba tax na koor day mel ni ab noflaay la ci baax gi waaye nag noonu la mën a indilee nekk ki wér gi yaram nag ndax lu ëpp ci eh, ak wéradi eh, la woykat ba wax rek fa inna daa akthara ma taraahu yakunu min at-taami aw ash-sharaabi woykat bi dafa wax ne jàngoro lu ëpp foo ko gis rek ci ak lekk la bàyyi ko mbaam bàyyi ko ci ak naan moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne euh, mu tasixoo woor leen kon da ngeen wér da ngeen am wér mu mel ni woor mooy jihaad ji gën a mage ci ku bëgg a ak bakkanam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yéen mboolem xale yi xale yu góor yi ku ci mën a denc na denc ku ko ci mënul dénk naa ko koor ndax koor googu euh, ab mm, jumtukaay de ab fegu ko ak ab pakk lay doon bu koy fegal yu bare bare bare fa fa alayhi bi sawmi fa innahu lahu wijaaw ramadan nag bari nañ nga ne lool la ci jëkk mooy mooy sangub weer yi tabaraani yi nettali na ci jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni sayidu shuhuri shahru ramadan sangub weer yi mooy weer koor wa sayidul ayaami yowmul juma sangub bis yi it mooy bisu àjjuma naka noonu it yonente bi sallallahu nit ñi buñ xamoon li nekk ci weeru koor day kon danañu mébét weeru koor mat at kon dañu bëgg sax mu mat mu mat at benn ba tey ñu jële ci yonente bi sallallahu wax weeru koor a ngi di weeru barke dikkal na leen yàlla dana leen ci ñëwal dana ci wàcce yërmandeem di ci sitti ay ñaawteef di ci wuyu seenu ñaan yàlla day xool jëkkante gi ngeen di jëkkante ci def lu baax muy puukare woon teeg malaaka yi ci yéen kon nag fexe leen ba won yàlla ci seen bopp lu baax daan leen kataxee di dëgg day mooy ki nga xam ni xañ nañu ko yërmande yàlla ci weeru koor yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa yéeg ci kaw mimbar bi war a xutba daal di jekk-jekki ne amiin toogaat tuuti ni waat amiin toogaat tuuti ni waat amiin bu mu ñetti yoon bañ ko laajee lu tax mu wax ñetti amiin yooyu mu ne bi ma yéegee ci kaw mimbar bi la ma jibril ñëwal ni ma képp koo xam ni dugg na weeru koor ba génn jéggaluwul yàlla ba mu jégal ko ba tax muy dee di tàbbi sawara de yal na ko yàlla sori yërmandeem ne am na ko amin muy weeru koor occasion la boo xam ne bu ci nit jéggaloo ñu jégal ko kon nit ki nam def ba weeru koor ñëw ba jàll jéggaluwu ci ba tax muy dee di tàbbi sawar kooku euh, ñàkk tawfeex de moo tax jibril ñaan def loolu de yal na ko yàlla sori yërmandeem ne bi mu wax ni mu ni képp koo xam tu des na la fi moom ci yow ba tax muy dee di tàbbi sawar de yal na ko yàlla sori yërmande ma ne ko amin ndax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa koo xam ne te bépp jullit boo xam ne tudd ci julli ci moom ni sallallahu alayhi wa sallam loolee dana nekk wiqaaya dana nekk goo xam ne suñu borom dana la ci fegal sawara kon ñàkk taw fex weesuwul saa buñ tuddee yonent bi nga ne cell ba tax ngay dee di tàbbi sawara jullit noonu la ñaan ñetteel bi mu ne ko mu ni daf maa wax ni ma képp koo xam ni fekk nga sa ñaari way jur ci kaw suuf mbaa nga fekk fi kenn ci ñoom ak yërmande ak euh, euh, ngërëmul wayjur ni mu yombe amoo dëboo seen ngërëm ba tax ngay dee di tàbbi sawara yal na la yàlla sori yërmande mu ne man ko amin kon ñetti occasion ko muy fekk sa ñaari jur mbaa kenn ci ñoom ci kaw suuf nga fexe ba dab ngërëmu boo ko defee da nga mucc ci sawara weeru koor boo ko fekkee jéggalu ci yàlla dana la jégal léegi loolu ñaari occasion te boobaa da nga mucc ci sawar ñetteel bi mooy saa bu ñu tuddee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa wet moom loolu dana nekk luy ak safara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne julli juróom diggante julli juróom ak ajuma ba ajuma ak weeru koor ba weeru koor day dañuy far dañuy far bépp bàkkaar bu dox ci diggante bi bu fekkee nit ki moytandiku na bàkkaar yu mag yee mag a mag ba moyta yu mag yee mag a mag ñu ne daan yëpp julli ba julli julli gi day far gi nekk li nekk digganteem julli gee julli gee far li nekk digganteem julli gee julli gi jas far la nekk te far la nekk la nekk dox la dox digganteem julli gi jas weeru koor it noonu ajuma bu ajuma yi noonu kon yooyu